soxna Jéema Jóob way fi ngeen di seewey ñoo ma jëmal boppam soxna Jaara soxna Jaara soxna Jaara moo di dey ba mi desi di feeñaat teeram wa de foofu ndaw soxna Jaara bu gii soxna yàlla na fi des yàllal yàlla barke soxna jaara yow nga jël nga jox ko jàll nga jëlee aw saara kon taari xam nga sunu maam cosaanam nga wax ci moo di jaaram fam feeña ak jaar ba ñëw ci Porokhane wallaahi lépp nañu ñaan ma fab saagaleen déglu ma ma delloote way fi way ko jig na ma man may na may saami saam ma fab saagalindu way bi dellu fëggaat daldi sot xëlim ak tagg dellu bakkaat fab galen bi la jiinal ko boole caw taas te sos dayi wurus way ko loolu amul faas kenn rekk yayoo loolu moo di sun maam soxna jaaraka am xaadim ak borom saam moo yayoo tagg moom rekk def lu taas yàlla fay na ko it nag ba làq nay xaas jagle ko defal liñ ci gis ci fii kaar matul nag asakay leen gisul te doy jikko yam melowoo woon bu da caay wéet mës la soppi ku ëslaf ku way ku tiit les ca xam ca ba muy tuuti am kemam néew moo di les ca xamaat ci mu jëm ba xëy siiw fax yata siiti teg ca gorlaa dib jullit te di yaaram moo ni mbër la kollureem ga samaw al da koy roy ci moom lewat ax na fa tab nag kaabu roy ci moom doomi sang la joj sang nay kemam moom sallu gën la waroon doylu it la def koom soxna jaara maasum jigéen ak yi góor yitte moo ko ko may ak di coo bari buur ab yaram ak i teggin la sang kuy góor moo ne kersa la làmboo gu pas-pasam nguur nangu gaa waraloon ñépp nanguloon daam lem jëfa sëriñam baa ko may sëriñ sàmm kollureem nga mu sàmmoon a tax ku ney riir ngir jéemu ju ko soxna jaare bi géer coono bam daje tax nun nu sax ca naf man de mooy sama waay fawu mat na yit waay jokk bokk ga moo tax ba ñépp bokkoo bokk yépp juboo tey te ñépp déggoo am na jom amu fi yiw amoon na maslaa am njariñ ta tiraangaam itam lu fes la jàmm jaawaral jàmm sax ci réew mi kenn du gotti ko kam firnde laa ci man mii tab am ngaa waral ñun ñun indi barke bi tey loolu jar na sabbal tab am ngaa waral ñun ñu indi barke bi tey loolu jar na sabbal ful la jaawaral batuk sëtam yi moo waral lu ñu àndul du am ci mbir yi soxna jaara jomam jaa waral sëtam yi luñ liggéey lu du doy am dogal ci gor yi baarikal la bu soobaa li am na tawfiix yàlla jox na ko ay ndam yu rëy yu dul jeex soxna jaara ma yi amul fa waa faas ca baxdaad lu ñu rëy rëy amuñ ca won xaas yàlla fal na ko tey far ko jox ko lan waar gaa yi yàlla yewee fab na seeni lasraar fa hiya jaaratu rabbin hawat jalala wa hiya musinatun hasatil jamala wa hiya murshidatun murshidatun faaxatil rijala ahjalat badaran hasatil kamala wa hiya naadiratun misli la tubaara ndegam am na ko sax mukk fii uxra yàlla ber na ko kam am la kenn amul laa dootu ko am yittali lu la ak payam la ne daa jëf lu kenn jëful daal di ko fayit lu xel dajul moom doomi sang la woon jaay ko lépp dib jaam nangu loon sëriñam lool di sukka kay ram xam-xamam ba mu làmboog juddoom bu ba mës la tax ba mu jis boppam ak yaram ba tegginam yamu làmboo taxun mësul teen da daala da daalam sëgg mës la seeneen waaye woy jurugar mën la ñàkk mel nii fa Seex Bamba di feeñe du ñàkk set nii mm-hmm. xol la seet la te seetloon jëful lu ñuy xeeb biiram ak biti baayam ku set la duy lépp doomi gaynde lu tuut tuuti doon njàmbaar kon du xar wu mel nii mel ci ab taar mbusoo bee di géñoom ak nag di aw mian yaari yi yile moo tax mu donn lañ miin pas-pasam ca la jiitooy kamam bajar yéem nañ ko rey nde ko naw loo mënul dangay jéem ku jéem laf te sa pas-pas dëgër jërul tiit boo saxee ndimalal yàlla ak si doo soxna jaara de moom fii la aw baxee jiituy kuréel rawi ka ngant fi sa tey ji yàlla kam ko fa yay xaadimal Moustapha kooka jomb na ñi ak ñafe ak ñafa moo di jëwri ñu yónneen ko yàlla jagleel muy xarit bu mu xajjal cëral ko cig teel mooy ko yàlla tijjil màng seeni sirroom moom mu duy cëba gi jël ba séddi dongoom ngir xasaa inu rabbi la wax bu yàggoon teg ca nag futi xal lii te moo ko bindoon ka lii du morom kat du seen màppandoo moo tee ngeen ko ne ruu yaa ngi nii dikkandoo yàlla mooy ki ko jiital te booba sun maam ban la woon bindagul dara jox ko lislaam moom garaat ya mu ràngoo ci wàllu yàlla kenn mësi ko ràngoo ni surtout balla ku seddooti ci yàlla dangaa ñëw ci moom ku bañ nag dina sooy tabbi ci tuskareem teele ñëw ku ko def teele seddu raw teel ci sag mas ku ñëwal ñeela lépp barkeel saa jëmm ak sama ruu jëf yi wax yi lum doon moo ko moom yëngu yëg dal yi lum man di doon gëm ko wóolu ko doyloo ko def ko it waay ci biir ak biti moom mooy sama delluwaay tee nga def ni ma def teel a nangu moo neex dangay nopp lu raw laq yi wudul jax man de maa ngi ci tey ëllëg nde caf koom kamos rekk ko xam kon mosal dégg nga koom moom la yàlla fayee soxna jaara kon daal soxna jaara amul kem na ngeen ko may baal moom la yàlla fayee soxna jaara kon daal soxna jaara amul kem na ngeen ko may pal moo tax it amuloon sikk ngeen ji tànneef moo di soxna si Muhammad di ngeen ji roy tiif ku jeexi ayibam doo ci gis lu dul baax daa amul lu ko may loolu doy na xar baax listiqaama la làmboota moo di lef ma mooy dayub yiwekat tey dayub karaama amul woon jotu jëw feesaloon na waxtoom dell ci jëf yu lépp nag ci farlo dib jullit te di asgor di jaamu yàlla dib sunni yitu bam nag du xiila xaala njàmburam nga mu jàppoona tax du tooga ci jataay yu mu dul dolli ko du saaga musta duggalu yoonum néewul du yëddoo du lañ bat mbiri jàmbur te nii la dëddoo maa ko naw bu sa doy ko doy nayit lool maa bëgg na leen leen naa ko bëgg na leen biir te sant lool maa ko naw bu sa maa ko naw bu sa doy loo ko doy nayit lool maa ko bëgg na leen biir te sant naa lool xam sa diine di sab donga moo la doon taas nang ko dolli lu dul jee defal ko ay xaas maa ngi xët mu de say dam ma dee su ko jel duy xalima du làmmiñ sa lépp barkeel solli rabbi salaatan alal mustafa bi alin wa sihaabin tafuuqa alfa wa sallim ta nga dolli ngërëm say xanaa xaadimam ba ko doonoon gërëm ummana asalaamaaleykum dëkk diis watata jaar itam ci raara pënd lool sunu maam rek te jaru ko defaraat yàlla buur na la fay kon ci ling ci bàkkaar tag bi fañ akataat jël sundam di fëggaat buur bi tam di ni koy ñaan rëy na moom maam kon ñu ngi ziyaare baax eh, Serigne Khadim Bass mag ci Serigne Amadou Bass ak sëñ Cheikhouna Silla ak Serigne seex Ndiaye ak ñaar ñi ma àndal muy Serigne Sadex Dem ak Serigne seex Jëm kon ñu tëj foofu di wax ne kon jotaay bi fii la di yam neex na lool ba mel ne ki lem mbir mu jóg di am fu mu yam loolu rekk moo di li tax kon jotaay bi fii la di yam neex na lool ba mel ne ki mbir mu jub di am fu mu yam loolu rekk moo di tax maa ngi jaajëfal sama gan maa ngi jaajëfal sunu gan gaa yi kon te yéen ba beneen seen xarit bi Fadilou Kane ak Cheikh mi moo di fi wax maa ngi ñaan borom bi fi man wér ba fekke ak kàttan del fi suuf ba ci ngoon fii la kon bu kenn di tëx maa ngi ñaan borom bi fi man wér ba fekke ak kàttan del fi suuf ba ci ngoon fii la kon bu kenn di tëx lu ci jub ci yàlla la kon lu ci dëng nekk ci man maa ki manqué maa tële man nan ma baal ci àq yi dox min wi moo di waxtu watam bul ko fakk jàpp ko dem na ko yóbbu foo jëm suba laa fii dana jax min wi moo di waxtu watam bul ko fakk jàpp ko dem na ko yóbbu foo mën a jëm suba laa fii dana jax bur yàlla tawal wala ngaan yàllaay buur baxaru bee de baxaru bii de baasa ko wax cey cey baxaru bii de baasa ko wax baasay góor diglu leen fi tuuteete sun galteer ci tànki sëriñ Mamor cey biitur sëñ Mamor a am xam-xam am ay leer xeeti daj yépp lay joow way ci jóor xam-xam la bu ànd ak yaroog laa biir day waxtaan di jàngale saar yee ñii kuy wut xam na diglu bi sëñ temps daa nañ ràññee sunuy sunuy farata ràññee woon rahmaani rahim gannaaw siyaar ak ndokkeel nuyu bii lépp dañ koy taxeen rek teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Mountakha mii jëwriñ ji jaarale ko ci jëwriñam yi ko nekkal ci jotaay bii waaye tàbbal ci nuyoo mbooloo mépp ak kii dégg sunu kàddu ndax waxtu bu gàtt wi xam naa ne ñi ma seqal jotaay bi amiru shohara féete ma nii di sëñ Ahmadou Bass bàyyi lu ñu jëm yi bàyyi léegi yaakaar naa seqal ñoom jotaay du yomb xasida gi ñu tàmbalee guddut fanweeri bayit rek ak ñett ñu tënk ko ci limu dund soxna jaara muy baxru tawil di wax ci ne ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat ma dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat te tànqit ci géejam gi saxoo duusu gépp wet te tibb ci xéewal yi wër dellu sedduwaat nawet baa ngi waame wi yàlla waa ngi di wal fu ne lu waay tax mu sax meññit te loo gëm mu seqiwaat ku dëkkaale ak yàlla ngi nii bàjjo baa ngi nii ku rëy ay jaloore ngi di xudwatu saalihaat lu jib njaaga mam jaaraa di njaag ummu sayxina borom ndab lu fees li dell ku ñëw di raggaxaat samam ngi saa ndamba ngi soxna jaare mi di kodday di waajtay woo ku koy waaj a taruwaat samam kooma ngi sa ndam ma ngi soxna jaare mi di kodday di waajtay woo ku koy waaj a ku man góor ku raw kaa ngi ku réy cër ku màgg a ngi ku am yitte ak pasteef ngi tey tey ku sàmmwaat ku man góor ku raw kaa ngi ku ku màgg ngi ku am yitte ak ngi tey ku sàmmwaat te sàmmam nga ak njaxlaf ndewa saabixoona saabixaana saabixoonaa ko daggiwaat te teggin la def koddaay ragal yàlla dib dundam mu war sàllu kersaam sañ ci kër doy lu dëkkiwaat ba tax lii mu am duy kaf da koo jënde njëggu rëy ndonog sonn bokkul sonn meññan ba day tax lii mu am duy da koo jënde njëggu rëy bokkul sonn meññan ba day royaat mu far boole moom ñaar yëpp daa doon ndam yu rëy te sonnaat ba far raw ñëpp kuy jéem a raw rek kuy jéem a rawaat te sonnam nga meññal may sëriñ ba ëpp law amul woon te dootul am nde wallaahi day lu faat kañal kooka bakkal kooka way kooka moo ko jar ku dul Bamba sooy lañ bat mu fees ak sëyi at mbaaxam gu rëy gaa tax sunu mbon di nun rafet leeg gu moo nëbbi sunu ñaaw askayaat tamoo tax nu am xéewal ci sunu tey di seenu it lu raw loola ëllëg lii nu woon loola fay ñëwaat ayaa imnaha yaa cheyxana yaa di meññetam mi dul jeedu xaaj naat dindu xéewal yu rambataat sunuy tuma ngi ruu yaa ngi nii jëmm yaa ngi nii nu jébbal la gàddaay ñëw fi yow kenn delluwaat sunuy ngi yaa ngi nii jëmm yaa ngi nii nu jébbal la gàddaay ñëw yow kenn du delluwaat fa tax yaanu moom mamaalilun moom di say alal sunuy yëngu ak sunu dal sunuy dund mbaanu faat te lew nan la dombit foo joxoñ foofa leen di jëm te xooluñ gisum loolu yow fu nuy toll yasluwaat jigéen ñooñu jëkkoon kenn amul woon ko mel ni yow te li ñëw ba yowmal xasri kenn dootu lay amaat lam yi tegtalee kon soxna jaareke moom amul te it dootu am mukkit ba lay nga dal waat la des moo di xeñ mbooram te koy roy baraw sa kem ndax jot ko tuub naa seen ko rek ëpp naa xalaat ndemam jur rasulallahi rek mooy ma biir ma woon ñi rek pas-pasam moo rëy ba tax yomb ca royaat keroog ba mu yëree kaamil ba xar yam ca waxaati man nabi ina daal fay fas mu jur kon te cay sasal dox nag doxin way tax ma am doole ci wayam te jiital mbañam rus boole ko muñ te takkuwaat ba sellal digganteem ak boroomam ci gépp wet te yàqul digganteem ak kilifaam ci farluwaat te jokkoon na ak bokkam lu ñaawoon defar na ko matal diggam ay dëkkanoom ci muamalaat gërëm loone it ay bokki daaraam ci ay jikkoom ci yaatoog tabe ak ab xarkanam sax ci belliwaat nanuy xentu kon jikkoom yi fu ñu tollu jéem te luñ jëf lu rëy rëy rëy nanuy xet ko dolliwaat te jiital jom ak dox ba xëy jiitu kam yewar te jiital jom ak dox ba jiitu ba xëy jiitu kenn yowoon danay tax itam ëllëg su bis ba nu sedduwaat li mu ak laa def bayit yi taxawlu naa di ñaan nag nga bañ nuy fàtte noo ngi saru duwaat sëriñ Mor sa sët baa ngi joxoon nga ko mbir yu rëy tasonta tasantoon na it cantam gu rëy na nga ko dolliwaat sëriñ Mor gi sëriñ Mor sa sët nga ko mbir yu rëy tasantoon na it na nga ko dolliwaat wa salla ala xayri wara summa wa alin wa asxaabin boroomam ba koy faral asalaamaaleykum